problème dëgg mooy ñi ñàkk formation de parti waaye ca wet ga yéen bi ñu xamal bu fekkee ne yéen ci ay parti politique dañoo am jafe-jafe ci xam naka la ñuy organiser ab élection préfet yeeg sous-préfet yi tamit kenn du ñoom ndaxte gannaaw ba ñu rejeté yéen ci ay candidature sénat mujjee na leen te leen di xamal ni wàllum rejet de candidature moom dafa am yoon 24 heures i kaay ubbi xët bu yaatu jagleel ko Barthélémy Dias ak coowam li nga i xamal ci yenn liste rejetel nañ ko opposition bi kaawu Barthélémy Dias mi nga xamante ni wóolu nañ ko le novembre bi ñu jëm ngir mu jàkkaarloog juge bi lépp yéen bi dellusiwaat xamle ne gis nga Barthélémy bi nga ci jamono bi ndax duñu seetaan benn yoon nguurug Sénégal gi di ko faagaagal Guy Marius ci wet gi tam di xamle ne Macky nag moo ngi soga laal laalaake danañ xeex ak moom baxalangu ci suuf ndax duñu seetaan benn yoon muy faagaagal Barthélémy Dias mii en tout cas Pape Mahawa bokk ci benn bokk yaakaar mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne gis nga Khalifa Sall ci candidat yi nga bi a di xam ne mbir yi dafa louche laa wax am na suspect coow li coow li nag ñun dong la lii rek war na tax ñu war a xel ñaar Ousmane Sonko ci biir yéenekaay bi di feelu Khalifa Ababacar Sall di ko xamal ni dama ne sunu coalition bi benn yi yéenekaay ñu xamal lii nag mooy grand sabotage dëgg yéenekaay bi di xamal ne gis nga nguur gi tële dëgg ñu ne benn yoon benn liste benn bokk yaakaar rejeté nañ ko ci Sénégal gi gi yëpp xanaa du ñu wax ne amul benn liste bu ci incomplète cas yi ngay dégg yëpp ci opposition bi la lii rek war naa tax ñu ne élection yi am na lu ci louche waaye yéen bi mu ngi xamal ne opposition bi toll nii ñoo ngay menacé ne ñu moytuwul gis nga benn boo ko yaakaar dana wéet lool ci élection yi xoolal ci diwaanu Thiès rek opposition bi seen liste yëpp la ñu waaye nag préfet yeeg sous préfet yi jël nañu leçon bu rëy ci Sénat gannaaw

yi yéen kaay bi ñu xamal ne gannaaw sorti opposition bi rawatina Yewwi Askan bi di menacé ak woo askanu Sénégal gi yëpp ñu dem gungee ji Barthélémy Dias ci tribunal ba procureur général kay bu yeboon du génn ndax waa Benno Bokk Yaakaar jël nañu défense am xam ne ne gis nga forcing bii waa Yewwi Askan bi bëgg def bëgg a sabota woote gi ñu woo Barthélémy Dias ci tribunal nara woote fitna ci àllarba ji loolu nag kenn du ko seetaan ndax ñun waa yaakaar danañ taxaw jàkkaarloog ñoom luñ ci dawul rek dawuñu ko ñun Abdoulaye Diouf Sarr ci biir yéenekaay bi di xamle ne damay woo 19 communes yu nekk ci Ndakaaru njaay gi yépp ñu ñëw jàkkaarloog opposition bi riposte wu comme loolu la ñu bëgg ndax duñu nangu benn yoon ñuy faagaagal suñu justice bi Abdoulaye Diouf Sarr ci biir yéenekaay bi di xamle ne gis nga administration bi danañu def seen liggéey comme il le faut te nag kenn ku leen koy yàqal ñoom waa Yewwi Askan Wi ak opposition bi bu fekkee ne am nañu ñàkk expérience ci wàllu politique ba xamuñu kañ la ñuy déposé ak la ñuy déposé seeni liste loolu ñoom la concerné waaye nag duñu yàqal benn yoon liggéeyu administration bii ba leen di indil fitna lii moom duñu ko seet

sénégalais yëpp jug gunge ko fees dellu bu Dakar bii ba ñu xam ne Barthélémy Dias mii moomum Dakar Khalifa Ababacar Sall ci biir yéenekaay bi di xamle ne ñun de duñu nangul troisième sacrifice boo xamante ne koy def suñu natango gannaaw Karim Wade Khalifa Ababacar Sall Barthélémy Dias mii la bëgg faagaagal te lii duñu ko seetaan Walf Quotidien ubbi ci xët bu yaatu tey xamle ne Ousmane Sonko di woo jeunesse su Ndakaaru njaay gi yëpp ñëw taxaw artu bu ñu moytuwul la xewoon ci mois de mars mën na xew ci le novembre bii te su boobaa baaba kuma na dal Sénégal gii Les Échos yéene kaay ne en procureur général moom génn la gis xam na ne le novembre bii lañ ko convoqué kon nag warul toog ba jamono ji di woote fitna te nag dañuy fépp luñ ci góobe rek nañ ko gar yéene bi def dossier bu yaatu ci Adama Faye mii di góor a Macky Sall gi artu nguurug Sénégal gi nga xamante dañoo rejeté amul sama liste bii di ko recevoir par te bloqué ngeen ko modi bu yeboo ngeen yaatal seen prison yi te xam ne dana fees dell ndax duñu nangu benn yoon ngeen di rejeté suñu liste yi amul leen lu war a tax ngeen ñuy bloqué ndax bu fekkee ne seen couleur yii la ndax bu fekkee ne seen couleur yii di ma saf mburoog chocolat lijjante wu ko ndax nuróowu ñoom te bu dee seen bopp fas bii ngeen di wax ne dama nuróog moom wala da ngeen moom ndax ngeen may bloqué ci élection yii la libération yéeni kaay moom ubbi xët bu yaatu jagleel ko musiba Baba Kumba gi nga xamante ci di ñu yépp la mujjee rey gannaaw leen pikiiree ba mu noppee nag lay soog a rey boppam waaye li jaaxal ci dossier bi moom Pala bi ñu yegsee ay mégo cigarette fekk ci wetam benn ci doomam bi nga xamante ni rey na ko tam fekk nañ ci yaram bi mu am ay blessures yu bëri yéeni bi di xamal ne gis nga coow lii coow lu yàgg la am na ay at coow li sax mu jëwoon na yegg tribunal ba tribunal bi jëloon décision jël xale yi jébbal ko seeni yaay ba dossier bi lépp leer ñu xamante ne yaayi bi mu yegsee ci bërëb bi nga xamante ni la fekk doomam yi ñu rey kenn mënu ko téy ndax ay jooy ba mujj gi dafa am malaise ñu mujjee koo évacué yéenekaay bi dañu xamal ne message bu mii kay moo jooyloo ñëpp moom Falla di xam ne ci biir yéenekaay bi ne gis nga féex lu ne dafay tas sëy bii bëgg a yàq sama àdduna yéenekaay bi def ci taxaw seetlu bu yaatu tañu xamal ne gis nga coolu coolu soxna si la ndax jëf ju ñaaw bii mu programmé bëgg a war borom këram gii nag lii dong moo yóbbu borom këram gii ak njabootam ah xam naa ki dara de moom gàcce moom daf dul reyati nit waaye bu gàcce doon rey nit am na ñoo xam ne tey jii du ñu fanaan Sénégal